marché bi naqari rek neexut de parce que ni meloon melatu ko feebar bi tax na ñi daan ñëw ragal na ñoo génn ñemeetu ñu ñëw léegi ñu nit comprendre nañ leen xam ni ñoom comme mënatu ñoo ñëw ñuy ñëw benn benn benn benn rek loolu rek moo fi nekk de marché bi moom neexatul. feebar baa tax jën amatul marché bi neexul en plus heure yi ñu waroon xëy mënatuñ ko xëy léegi 6 heures la ñuy quitté ci kër yi dem marché central bu ñu demee. ñu ñu jënduloo ticket bu ñu duggee du ñu mën am jën ndax ben jën ñëwatu metti na mom jën amul ndax auto yi indi jën ñëwatuñ lolo tax jën amul dematuñ géej port tijjiwuñ ko lolo tax jën amul ben auto ñëwatu ñi ngi nak sonu bu bëgga dé jënd jëndi jën yi cher bu ñëwé sax duñu gis kuñ ko jaay ndax kenn nangotul ñom biir marché nenañ bolo bi lañuy bañ comme ça gis bi ñu ngi koy jëndé 35000 bé ñu ngi ko jëndé 65000 kees yaboy instant bi cinquante cinq mille quarante cinq mille ya boy? yaboy dafa cher moom cher na trop ça. Masse, boo génnee dix mille bala nga ni ni. nii nii danga naan dafa wadd wala dafa leen te fekk ya ko jay. jën a gën a seer jën ndax kenn gis ko mool yi dematuñu géej ñii nga xamni ñoo ñuy jaay jën sax dañoo son ñoo. ndax heure yi fi daan joge di wuti jën mënatuñ ko wuti. fajar lañ fi jóge heure yi ngay ñëw marché bala ngaa yekk añ ay 2 heures 3 heures xam nga loolu neexul ci jaboot lépp a seer man na lépp a seer rek. ma ñëwoon dugg si fii di jënd jën waaye marché bi li fi nekk ñëpp ko gisandoo marché neexul jën yi amatul ba pare li fi jot am nii sax neexul a mais di ko jënd parce que moom nga fi gis ba pare cher na moom daal doy na waar. jën bi nga bëgg sax doo ko gis jën bi nga bëgg jënd man dinaa jënd jën instant bi mais li ma bëgg jënd ko. mais dinaa jënd jën pour togg jën rek mais lii neexuma pour jënd mais lii moo fi am nit ñi nangootu ñoo ñëw marché bu ñu ñëwee marché daal ni ñu daan jaayee demeetul noonu presque daal dañuy teel a wàcc balaa trois heures ñu muur parce que cinq heures lañ ñu may pour ñu tëj marché bi léegi balaa trois heures dañuy obligé wàcc. prix yi moom fi mu ne nii géej gi dafa yokk lépp daal dafa yokk que oto dematul oto ñëwatul li fi nekk rek la ñuy jaay. te xam nga nit ku ñu moom sénégalais tàmm nañ loolu bu dara xewee rek ñu profité waale ci léegi loo doon jënd 5000 ay 6000 nga koy jëndee parce li fi nekk rek moo fi am amatuñu benn bagage bi ñoom mënatuñoo wuti bagage gis nga suñ taabal yi mënuñu sax a génn kilo keccax 1000 francs lay jar te ñu ngi ko doon jëndee ay 500 ak yooyu mais léegi 1000 francs lañ koy jëndee fu nañ kilo géej gi ko beurre 4500 lay jar kon 2400 yéet 1600. fi ne mënatu a mënatuñoo jënd ci marché bi rek la ñuy njogaane ñu ngi teg suñu xaalis mënuñoo génn ndax feebar bi. lépp looy jënd rek instant yi dafa yokk diwlin beeg sobleeg lépp dafa yokk instant bi li fi tane daal mooy poivron daal booy xool ci marché bi yëpp moo fi tane mais à part poivron yëpp pas cher. parce que nit ñi sax déjà liggéeyatuñu ñëpp a ngi seen biir kër yi weer dee nga bëgg a fay location booleeg dépense bi ndox ak courant te liggéeyoo bu dee ku góor ak ku jigéen ñëpp doon liggéey ñoom ñëpp toog day doy waar. ay deux cent cinquante ak téeméer rek la ñuy jaay fi mu ne nii gisatuñ kiliyan gisatuñ kenn waaw marché bi moom mu ngi noonu daa alaa daw me léegi daal tële boo ko tëlee mille francs sañu naan la wàññil ay cinq cent waaw dafa cher moom te dara amut dina cher si nit ñi rek ba tey parce que bu ñu amul luñ ko jëndee rek day cher ci ñoom loolu mooy affaire bi neexul de marché bi neexul de fenn sax neexul fenn neexul waaw dafa cher de dafa cher de bagage yi dañoo seer géeju bër dafa seer géeju koŋ dafa cher léegi moom loo daan amee yow kilo bi 2000 2500 léegi mënoo koo am loolu yaa ngi koy am ay 7000 6000 dafa cher moom kenn mënatu ko man fi mu nekk nii géeju bër maa ngi koy jaayee kilo 6000 te bu njëkk ba mën naa ko jaay 5000 mais mënatu ma ko jaay 5000 parce que boo koy jënd en dafa cher kon dootoo ko mën a wàññi loolu mooy affaire bi.